asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xibaar yi gën a fës ci ayu bis bi dañ koy tàmbalee ak projet de loi bi nga xamante ni daan nañ ko voté ngir daal di andiwaat poste bu premier ministre démb lañ ko amal fa nga xamante ni moom mooy assemblée national ci député yu bëri daal di koy nangu lu tollu ci ñeent fukk ak ñaar ci ay député yu Benno Bokk Yaakaar ñu daal di voté li nga xamante ni moom mooy li ñuy delloo si loolu di poste bu premier ministre ñaar ñoo daal di bañ juróom-ñett daal banque seen loxo bañ a fësal fu projet boobu nag ñu bëri daal di koy ŋàññi ndax jàpp nañ ne dafa am lu nekk ci ginnaaw ginnaaw te Macky Sall waxu ko dem na sax ba li nga xamante ni moom mooy fanweeri weer yi nga xamante ni dindi nañ ko Macky Sall jaar dogal daal di koy andiwaat ba sax ñu si bëri jàpp nañ ne ki nga xamante ni mooy Macky Sall dafa bëgg daal di gën jox gëdd poste bi nga xamante ne war na ko daal di gunge ci li nga xamante ni moom mooy Union africaine coowal viol Sénégal mi ngi wëy di am ginnaaw bi nga xamante ni daal dinañu tuumaal ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ki nga xamante ni moom mooy maître Djibril Wade daal ne accusé benn ministre ki nga ñu koy waxtaane te di ñaan ki nga xamante mooy procureur mu daal ubbi ab enquête ci mbir moom kooku nga xamante moom moo def loolu mi ngi ko jëmlee ci ab xale jigéen boo xamante daanaka yàgg na koo def ay mbir yu ni mel ci beneen wàll li nga xamante dégage ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Y'en a marre bugg a amaloon ci ajuma gi li nga xamante ni mooy ab doxu ñaxtu te ñu bañaloon leen ko daal nañ ko yóbbu ba fukki fan ak juróom-ñaar li taxoon nag ñuy daal di amal boobu marche nag muy daal di ñaawlu li nga xamante ni moom moo am ci biir dëkk bi ah, ci ah, li nga xamante ni moom mooy wàllu justice bi dañu jàpp ne Sénégal daanaka justice boobu moomu boppam leneen loo xamante ni am na ci ayubis bi moom mooy ah, juróom-ñaari transporteurs yi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo ci grève yi nga xamante ni amoon na ñi nga xamante ne jàppoon nag te jàppoon ne dañoo defoon ay mbir yoo xamante ni jaarul ci yoon muy yàqee oto yoo xamante ni mi ngi nekk moomeelu Dakar dem dikk te ñu doon ñaan ñu daal leen di amal ay liberté provisoire ñu dañ leen ko bañal ba fi mu nekk nii ba léegi ñu ngi si kaso bi seen ay avocat nag daal di mer ci mbir moom nga xamante ni moo am ndax dañoo jàpp ne dañoo salfaañe lii di seen àq ak seen yelleef bay sax ragal ñi nga xamante ni ñu muy transporteurs yi dellowaat buum ci boy boy ga beneen mbir mu am ci dakaar muy ab raxaskatu oto boo xamante ne daa sàcc lu toll ci ñaari million ci ab benn oto boo xamante ne ko doon raxasloo nga xamante ni ki moom oto bi dafa génn ci ab banque jox ko caabi yi ngir mu daal di koy raxasal oto boobu kooku nag daal di jël ci oto bi lu toll ci ñaari million ci ab saak bu nekkoon foofu daldi di mër ba fi nekk nii kooku nga xamante ni moom moo daal di moom boobu xaalis daal di ne porte plainte ca commissariat bu Médina université yi nekk ci Dakar daal di xeex jamono ji ci li nga xamante ni la ñuy nekkee ci université yi ginnaaw bi nga xamante moom mooy bu Ziguinchor ñi nga xamante ni ñoo nekk tamit ca daal di nañu daal di yëngal ñoom tamit ji ñu nekkoon ah, ci semaine bi lu toll ci ñaari fan yoo xamante ni dañoo jël ay grève jëmale ko ah, ci boobu école daal di sax li nga xamante ni moom mooy restaurant ba ah, ci beneen wàll nag ci ñeneen ñi nga xamante ni ñoo nekk ca université virtuelle ñoom tamit daal di nañu wane seen bopp ci ab grève de xamante ni daal nañ ko tàmbali jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo jëm ci war a jël ñu dem ci master yi loolu waral nag fu nekk nii université yi nekk ci Dakar yëpp ak yi nekk ci région yi ku ci nekk yaay wane sa bopp sa mer mu nekk loo xamante ni ñu si bëri ñu ngi koy ñaawlu ñu jeexlee ko ak lamb gi nga xamante moom moo doxoon ci diggante Siteu ak Papa ñu daal di koy dàq ba li nga xamante ni moom mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier ñu si bëri jàppee ko noonu ndax ki nga xamante ni moom mooy Siteu daal nañ ko dagg lu toll ci téeméeri junni ci xaalisam ak ki nga xamante ni mooy dëggatam nag daal nañ ko aj lu toll ci at juróom ci loo xamante ni dugg ci stade yi waaye tamit li nga xamante ni ñooy tambour major tamit ñoom trois mois lañ leen daal di waaye nag li nga xamante ni moo ci nekk nag mooy ki nga xamante ni moom mooy manager bi nga xamante ni moom mooy ànd ak Kid Siteu na dara doxatul seen diggante ak ki nga xamante ni mooy promoteur bi ndax buñ bëggi combat boobu amaat ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier dañuy waxtaanaat naka la ñuy def ba combat bu mën a am lii moo nekkoon seen xibaar yi nga xamante ni moom moo gën a fës ci ayu bi ñu leen di jox dig daje semaine bii di ñëw laataa loolu nag continuer leen di def seen abonnement euh, fii ci euh, réew mi point com